lu toll ci juróomi téeméer bus ak ñeent fukk ak ñaar mu nekk bus yu bëri ay bisu 55 cinq places ay bisu 20 places te euh, président de la république ni bis yooyu daf koy jagleel ndaw yi étudiants yi ak élèves yi surtout ci loolu am na ay bis yoo xam ne joxewoon nañ ko am na bis boo xam ne bu cinquante cinq places demoon na au niveau du lycée de Kédougou benen bu mel noonu joxoon nañ ko Jurbel ak centre Talibou Dabo ak aussi daara Rahma bu nekk Diamniadio enseignement supérieur jotoon na ñaar fukki bis ak juróom ñent ay bisu 55 places tey jii nag lu ñu daje mooy ci wàllu boobu président de funi day jox ñaar fukki bis ministère de l'enseignement supérieur jox ko étudiants yi nek au niveau des universités loolu mo waral tay manam taxawaay sama collègue bi Cheikh Oumar an bi nga xamni mo nek ministère ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche moy auto yi nga xamni gis ngeen mu nek ci ginaaw ñu dugg légui xol ko mu tal ko ah, ñu wane ni auto yu baax la auto yu bes sax la donc pour vraiment jeexal waxtaan bi damay wax ne bus yi euh, lu ci am solo luñ ciy ñaan ñu ko bu am solo am entretien au niveau même des universités bu suñu borom dana am. taxaw ci fekk ministre des infrastructures du transport des transports terrestres et du désenclavement pour jot caabi ñaar fukki bus yi nga président de la république dolli.